laa xawla wala quwata illa billahi aliyin azim nee na laa xawla wala quwata illa billahi aliyin azim saddit lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee mi ngi jéggulu kàddu yi muy bëgg a ci sama kanami kilifa yii toog ci kanamu mbokki taalibeem yii fi teew nee di jéggulu kàddu yi nga xam ni moo ngi koy yëkkati nee na bu fekkee ni ndawal seex Muhammadu Muntaxa dafee teew nee na moom mii de fi kàddu nee na sëriñ Abo it amatu fi kàddu ndax seex Muhammadu Muntaxa bu teewoon du yëkkati kàddu mukk nee na inna rasula bi qadril mursali nee kenn ku nekk darajay ndaw la la yónni ngay teewe nee na sëriñ Abo mi ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga teewal nee na di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér nee na di la nuyu nag ci turu sëriñ Abul Baraka mi nga xam ni moom ko fi yónni ngir mu teewal ko fi di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxol kilifaam gii teew muy Serigne Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nee na bi muy ñëw nee na Serigne Abo mi ko booleeg ak njabootam Serigne Cheikh Oumy moom Serigne Abo Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abo Serigne Basirou moom Serigne Abo ak Serigne Moustapha Diagne. moom sëriñ aboo ak alaaji jóob moom sëriñ aboo nee na ak alaaji mut caan mi nga xam ni moo fi teewal njabootuk sëriñ falilu gépp ci ndakaaru nee na mi ngi nuyu kilifay diina yi fi teew yépp di nuyu nag kilifay aada yi fi teew yépp nee na di nuyu bokki taaliba yi fi teew yépp nee di nuyu sunu jëwriñu yoon wi muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina nee na mi ngi siyaare ñi ko fi teewal ñëpp ci turu nag di ci jiital sëriñ am di mboodu mbet na mi fi toog jotaayub Cheikh Rafal ak njabootug Cheikh Ibrahima Fall gépp nee mi ngi nuyu nag waa Ndakaaru gépp nee na ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal ci kujjeeg politique gépp nee na kujje gi rek la wax nee na ñi fi teewal gouvernement bi yépp nee na ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant nee na kenn ku ci yow mi ngi lay jox wàccuwaayam bu baax di leen xamal ni nag bis bii tey jii nee na bisub sant rekk la ak ngërëm la sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Abo mi ngi lay siyaare di la ñaanal nee na dila sant bu baax te dila gërëm nee na sa taxawaay ci jëmmam jii nee na koy seereel taalibe yëpp nee na di ko seereel bokk yëpp nee na li la war ci moom lépp nag yaa ngi koy def nee na tey jii moo fi waroon a teew waaye gàllankoor yi jamono rek la ak xat-xat yi rek la waaye jàmm rekk la nee na danoo wax ni ku dese diis ku dese des nee na ku dese dese nee ku dese nag diis waaye nee na looloo tax rek mu xaw a diis tànk yi xaw diis nee na ñëw na ba Parduwa nee na fa la julee takkusaan nee na waaj na bay bëgg a ñëw fii waaye ay mbooloo ñëw fa ay kilifa ñëw fa mu xam ne yow mii foo teew nee na teewal nga ko fa nee na bu dikkee bindikee nee fi kilifa yépp nee njabootu kër sëñ Tuubaa gépp fekk nañ leen fi nee na njabootu kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na njabootu borom saam gi yëpp teew nañu nee na njaboot ñi nga xam ne ñoo tàmbalee ci sëñ Mor Anta Sëli ba ci Cheikh Massamba ndax sëñ Fàllu mii teew na fi moom sëñ Baara Xuraja nee na bu fi teewee nag teewal na fi njaboot gi yëpp nee na bi ni mi ngi ànd ak Serigne Fallou Bousso moom Serigne Ousmane Bousso nee moom bu fi teewee teewal na fi njabootuk sëñ Bousso bi gépp Serigne Amsatu moom Serigne Abdoulahi Lahat léegi la fi jóge nee na bu fi teewee nee na buntu kër sëñ Touba gépp teew nañu nee ñi nuyooti mbokki Baay Faal nee na di leen santati te di leen gërëm nee na suñuy wax nag mënta bari ci Cheikh Ibrahima Fall nee na dañuy wax ne ab sopp akum noon nee na kenn mëtu ci seede ndax bu fekkee ni la ngay wax dëgg la ci yow nee na bis bii wenn saan la bu jam ñaari picc wala ñetti picc ndax bis bii nee na danañ ko màggal ci yu baree bari bis tey jii muy ci at mii mooy juróom benn fukki at nee na bi sëriñ Fàllilu di tudde Seex Ibrahima Fall sooral bii muy boobaak léegi juróom benn fukki at la ci ren ak téeméeri fan ak ñaar fukki fan ak benn nee na boo xoolee mille neuf cent le sept juin mille neuf cent soixante trois ba le huit septembre bala le huit octobre nee na boo ko xoolee lépp juróom benn fukki at la nee na yu tegal téeméeri fan ak ñaar fukki fan ak benn fan nee loolu nag du benn bis nee na moo tax ñuy màggal anniversaire nee na nañ koo màggal nee na bi nga jëlee bis bii tudde ko Cheikh Ibrahima Fall nee na fukki woote ak juróom ñi liggéeyal sëñ Touba di ay taalibe Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ñu tudde ko bis muy fukkeelu yoon ak juróom nee na waxoon na ni ca appel ba nee na Cheikh Ibrahima Fall mafaatihul jinaan la waaye maxaalixul niiraan la nee na loolu nag mooy lan ajjana nee na juróom-ñetti buntu la sawara juróom-ñaari buntu la nee na boo ko boolee lépp nee fukk ak juróom la nee na yëf yi nekkaat nag fukk juróom tey jii nee na ci daje bii di juróom benn fukki at yu tegal ñaar téeméeri fan ak ñaar fukk ak benn ci bin jullee jumaa ji ak léegi ñi ngi ñaan ku fi teew rek nee na sunu boroom ubbil la juróom-ñaari bunti àjjana juróom-ñetti bunti àjjana tëjal la nag juróom-ñaari bunti sawara nee na ñoo ngi santati nag taalibe yi fi teew yépp ci turu sëriñ di santati nag sëriñ Seex Ummi ndax occasion bii mu may sëriñ bi nee na wooteel ko sëriñ Falilu ci fii ci capitalu Sénégal nee na ñépp teew nee na gis na fi suñ bokki lébi yi nee na ñoo dalaloon kat bowal bowal nee na turi nag këri diina yépp nag gis nañ leen fi nee na surafaayu yépp itam gis nañ leen fi nee na ñi yàlla dénk ndomb ak tànku àdduna ñépp gis nañ leen fi nee na daje bii nag daje bi jàmm rekk la ndax ñetti jullit rekk fu nu daje jàmm xew fa nee na war nañ cee sant yàlla bu baax a baax ndax pas-pas bi nu bokk nee na noo ngi sant di bokki taalibe bi yëpp nee na mi ngi leen di soññ nag ñu gën a góorgóorlu bu baax ci lu nu booleeg sëriñ Touba nee na nu xam ko bu baax a baax te fonk ko te jàpp ko nee na sëñ Gana Mesere mi doon waxtaan léegi wax na ko léegi ci waxtaan yu mu dégg ko nee na mi ngi koy nuyu bu baax ta di ko siyaare ndax li mu wax ni jaayante rekk moo am solo nee na sëriñ Tuuba dafa jaayante woon rek nee na sallallahu alayhi wa sallam it jaayante ndax sëriñ bi tudd na ñaari jaayante nee na jaayante gii ci Gabon la ko defee nee na gii nag ci gànnaar la ko defee woon te li lépp ci taatu garab la ko defee woon laa yaxtahu fil bar baa yaxtu bayaatuhoo fil bahri taxta sajara taxta wal bahru musbidun wa fajara nee na maa garab gii di jaayanteeg sunu boroom nee na duusi géej gaa di jëm si si moom eh, nee na kàccoor yi wër ak yéefar yi ko nee na ba mu gànnaar te fekk ci toog ci taatu garab ga baayaxtuhu fil barri taxta sajara fil barri taxta sajara wal jawwu tayyibun wa xawli barara nee toog naa ci taatu garab gi nee na ji tiim jaww ji tiim ju teey jaww ji tiim ma nee na góor yàlla yépp wër ma te fee lee la waxoon fii waxaat fii lii kon jaayante rekk moo am solo nee na la sëriñ Fallilu Mbàkke waxoon mu mi tàllal di jaayanteeg murit yépp nee ginnaaw bi mu boppam ba nee na ba mu jëlee lam amoon jox ko Serigne Touba nee na daan ni ko kat bëgguma doom ju bëgg a donn baayam nee na doonuma taalibe bëgg a seex ndax nee na amut baay nee na liñ tudd ci moom jox nag ko nee na doonut ab taalibe bu jaayante bu bëgg a seex ba yàgg mu ne duma dara rek waaye la ko Serigne Touba faye nee na loolu yi lan xam te loolu nag moo fi indi nit ñëpp moo tax senegal gépp bëgg ko ñi jullit sax bëgg nañ ko ndax la ko sëriñ Tuubaa tontoo tax assalaamu aleykum wassalaamu aleykum yasurrukum wa yanfaukum wala yadurrukum abadan nee na yal na jàmm joo xam ne sax faw ci yow ni sax faw ci yow nga xam ni dalay biral foo toll dalay bégloo foo toll ba loraange du ci am mukk ci àdduna waaye defal naa la loo xam ni nee na bët mënu cee tegu nee na loola nag mooy lii fi indi murit yëpp nee moo fi indi nag moo tax ay soppeem bari laal ci àdduna bi nee na balaa jeexal li may dolliwaat di seede ci sëriñ seex ummi nee na sëñ seex ummi nag mooy bàyyi faalub sëriñ fàllilu nee na ñun ñëpp nag nangul nañ ko ko ndax pas-pasam nee na faal nag baaxul doo ko mën a am nee sëñ tubaa rek ko mën a am nee foo dem ka danga naan mooy sama baay faal ndax nangu gum nangu nangu ni dal kenn nee na mi ngi seeral ni moom mii day baay faalub sëriñ fàllilu la ku bëgg sëriñ fàllilu la ku bëgg sëriñ fàllilu la liggéeyal sëriñ fàllilu la lu bari di jubanti aw nit te nag mooy liggéey bi nag nee sëriñ bi nee na mi ngi lay dollee ñaanal bu baax yàlla bu la cat jiitu yàlla na nga àgg fa nga jëm yaag say soppe yëpp yaag taalibe yëpp ak bokk yëpp ak ku la yéen a jàmm nee na mi ngi santati yàlla sunu boroom bu baax a baax di la gërëmati bu baax a baax teewaay bi ñëpp teew bi ngeen teew fii bàyyi seen soxla yëpp ngir teew si sëriñ bi nee sëriñ bi nag mi ngi ni mi ngi ñaan yàlla nee na yal na yàlla def jàmm ci réew mi nee na mi ngi dollee digal ñi mu war a digal nee nga xam ne bu leen digalee ñu def kon sëñ na leen a digal tam sañ leen a digal mooy ñi aju ci moom nee na nanu fonkati jaamu yàlla bu baax te nangoo liggéey nan dollee jub bu baax nee na Sëriñ Tuubaa waxoon na ni nee na ku bëj a jirim dangay ngay def jub nee na def ko muy sa baay nga jël muñ mu def ko muy sa ndey nga def na nga jël nangoo liggéey def ko muy sa ndijaay nee na ku dem nga dem ku demul nga dem nee na yi nga xam ni moo ngi jëm ci si jamono di ay yënguy jamono rek nee na dafa bëgg na ñépp ànd ci dal ànd ak ak teey ak muñ nee na te wax wax ñu ñaaw walla ngay jéem a jëf-jëf ju ñaaw nee na ñun ñépp nag nan ànd ak dal ndax réew mii nag jàmm rek moo am nee na fu sëñ Tuubaa ne nee dara waru faa am lu dul jàmm rek te moo am insha allahu taala nee na si Abdoulaye Lahad waxoon na neena senegaal na ku ko yéene ab safaan nee na sunu borom mooy jël ab safaan delloo la ko ba kooka kat du ko talati kon nag lii di ñëw nee na ñun ñëpp nag nan ànd ak dal ànd ak sutura ànd ak teggin te bàyyi njàmbat nee na njàmbat nag amul solo nee na sëñ dafa dindi njàmbat nee na wootee ko sant nee na sant rek moo nu war daa wax ni sëñ Tuubaa daana wax ni nee na kun defal boo santee nee na defuma lu dul dolli la rek nee na kun defal gud boo santee nee na defuma lu lu may defal la nee na nan sax ci sant rek nee sant nag moo gën mbooleem lu yàlla bind nee na moo moo tax mu wax ni nee yàlla moom la wax ni nee képp ku sant de ma dolli la waaye waxu ni ku julli ma dolli la waxul ku woor waxut ku natt asaka waxut ku dem màkka nee ku sant rek ma dolli la alhamdulilahi rabbil alamin nee na ko ci kàddu Seex Mamadu Muntaxa ba tey nee na moo tax ful toll rek di wax alhamdulilahi rabbil alamin nee na di sax ci sant rek dañuy am jàmm faaw nee na mi ngi dolliwaat di biral njaboot gépp nee na sëriñ aboo nag mi ngi dolliwaat di biral njaboot gépp nee na mi ngi ci ginnaaw Seex Mamadu Muntaxa Mbàkke rek nee na lum xool loolu xool nee na lum jàpp moom la jàpp nee na fu mu nekk foofu la nekk nee na buum gi nee na mi ngi ci loxoom rek nee na fu mu ko xëccee rek mu ñëw nee na nun ñii di njabootu sëñ Fallou gépp nee na jël nañ suñ lépp na jox ko sa njaboo rek nee na moom itam mu jël léppam rek jox ko sëñ Mouhamadou Mountakha ndax moom kat nee na ku yàlla dimbali la ndax fii mu toog nee na toppee rek moo ko may Cheikh Mouhamadou Mountakha ay waajuram ñoo fi nekkoon nee na mu topp leen ba jeexal leen ay magam nekkoon fi mu topp leen nee tey jii nee na yàlla moo ko fi teg te ñun ñépp nag nangul nan ko loolu nee na nan ko ñaanal yàlla sunu borom dimbali ko nee na te xam ni nag sëñ Tuuba amul tànki ginnaaw neena na tànki kanam rekk la am nee na nanu rafet njort nee na dalal sunum xel nee na nu xam ni xarnu bu nekk foo nekk ka nekk nekkal fa lislaam sab xol nee na sab xol la yàlla di attee mbindeef yëpp nee na yoonu wii nee ñun ñëpp nag ci sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké lan nuy atte ndax moom la sëriñ Touba di séddale loo nee na yàlla na yàgg séddale nee na mu yàgg noo séddu nee na ñu yàgg leen a séddu ñun ñëpp ñun taalibe yi nee na ku fi teew rek boo fi jógee yàlla na nga tàggoog bàkkaar ta nga tàggoog peggoor nee na ku fi indi ak ñàkk nee na yàlla na nga am loola doy sëkk nee na ku fi indi ak wéradi yàlla nga wér lool nee na ku fi indi aajo lu mu rëy nee na bu jul aajo yu naqari yàlla yàlla na ko yàlla saafara nee na sëñu noo dogu nag xanaa ñu barkeelu rek nee na ci turu ki ñu yebal fii sëriñ Cheikh Oumy nee na yaawoo nit ñi de nit ñi wuy si nañ la nee na day dégg ci sëñ Ablaye Mbaye peex mii muy wax ni nee na sàmm bi de mënta maye nag waaye mën naa maye meew waaye sàmm bii moom mën naa maye nag mën naa maye meew sëriñ seex nee na ñu ngi rek nee tekkil sa weeru ñuul yi nee na rek bëti sëriñ Fallilou ya rek te mooy bëti yermande nee na jóge koo dajel kum dajel kookee ku mu dajal neel na yàlla jéggal ñëpp nee na mi ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu jërë ngeen jëfati Modou Mbaye jërëjëf ah sëriñ Abibou Mbacke mu sëriñ Fallou jërëjëfati yow li tax sëriñ Abo doy loola wóolu ku dégg sa kàddu yi xam ne lii rek a tax nga jiite tuuba ca kanam yokk tuuba taxaw Touba defar Touba waaye di liggéeyal Touba